voilà moo koy jëloon sans limite mi ngi noonu di jégaluwaat bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen a ñu topp di leen fàttali yéen a ngi en TV mais yéen a ngi en direct également ci buntu kër ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé mais da man sa dafa ma yéem sànq ba léegi bi gis nañ gars yu bëri ñu ndel yee mbokk kenn maa ngi lay nuyu maa mais mais dañu gis affaire bi mel ne genre pression xam nga la quoi saa ñun amuñu pression tàmmuñu sax di wax sax. même journaliste yi nii sax xam nga day xaw a métti nii lala lu xew. non du loolu bés bee ko laaj rek bés bee ko laaj mais na ngay daw compréhension mais len naa la ko tega sa loxo cinq minutes ñaari jël si kàttan suñu borom. fan laa am yow. maa lox leen. fan laa am am bëri lu mën loolu ëpp cinq minutes foo ma fekk dóor ma. maa lox leen maintenant cinq minutes ñaari. na man man dama la xaamee nii. barki Khalifa Ababacar. dama lay faar. saa yi su daanee ma xàcc téere bi. merci beaucoup. voilà non yow voilà yow ah. maanaam da nga sant. waaye Ndeye Pape rakk la. Ah. waaw kii sama lépp la. te daf si dugal loxoom ci combat bu baax a baax. yaa ngi may dégg sa jàpp na si yenn saraxi yi mu ngi koy génnee muy suma rakk mu nekkoon man ak magam ma koy ñaanal yàlla xare ko àjjana muy Moussa Silla rakkam la. sama ñëpp jóg laa ñëpp a jóg def benn say ci bés bi. noonu ñun lii la ñu xam. ñun ñun ñun ñun ñun lii la xam te Sénégal yëpp xam nañ grand événement yëpp dam koo gagné man événement yi ñu soxla Pikine man Pape Sarr dama koo gagné dégg nga dama gagné Maniang Soumaré Baboy Bombardier bu njëkk ba muy Maniang Soumaré Thiès. dam ko gagné daan bombardier ñu ñëwaat événement bu gën a mag père waaw maa ngi nuyu suma père Bas kii mooy lépp Ama Baldé ñu ñëwati Baboy Gris Bordeaux barki yàlla maa feesal dem maa feesal amitié ku dugg ma jox la tiset ak billet defar 832 tiset ma gagné ti événement boobu drapeau roi des arènes mu ngi sama néeg Ama Baldé deuxième combat Ama Baldé moo kati junior maa ngi ko yor Ama balde fëgg la muy tableau mu ngi si man dernier combat Ama Baldé muy le 16 février 2018 moo Papa Sow maa ngi ko yor Eumeu Sène drapeau roi des arènes mu ngi sama néeg kon xëy na ñi xam ñiy wax ñoo xamul te mante frais su mbër du ma ko lekk événement yu mag yëpp dem koo gagné barki Seydina Mohamed. Eumeu dina ñëw kon Eumeu dina ñëw. non loolu mooy lan Eumeu seen bi ñëw ci open presse bu euh, Pokola ah? loolu rek doy na dama ne la sant Ama Baldé yi ku mu yeewul ci diggante Ama Baldé Boy Niang Eumeu seen soq ñi nga xamante ne bu ki jotee dañuy takk seen bagage ñibbi ñoo ñoo ñu sonal fii mais ñun ñii nekk si dama ne la te maa ngi lay wax yow xam nga ni damaa dagg suma licence promoteur licence bi ma yore moom la Luc Nicolaï yor moom la Gaston yor moom la Baye Ndiaye yor Ama Baldé bu yoree jëlee roi de arènes bi sama remplaçant Pikine Dakar la. suma nga ndelu de nu mu demee noonu. Ama ah, wot na ma. eh Pape Sarr eh, ah, wot. na ma dama képp ku ñëw ci stade bi wotu woo jàppee wuñ la si Ama Balde. Eh, pirmel booy booy watu may ma may maa ngi gërëm sëñ Assane mbake mu sëñ Ateex Mbacke. maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm sëñ Taxa mu sëñ Modou Habib maa ngi gërëm Ablaye Diop Xaas maa ngi gërëm Birane Ndour maa ngi gërëm Keba Kanté maa ngi gërëm Ilimane Lam maa ngi gërëm Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye ak Tafa maa ngi gërëm Jamil Nour laa bi nga xamante ne chaque jour 15000 francs lay génn mooy boo yi nekk ci stade bi moo leen di resal reer mooy kër din boobu tey étage boobu xale yooyu di tiim stade bi lépp sama loxo la koy teg. non dañuy aar ñun duñu kenn duñu saraxe déggoo ma ne combat bu mag bu ma téye sama loxo fit du am mais tamit yéen site internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a ma dékk micro yéen samay xarit ngeen yéen da ngeen maandu suñuy làmb moo tax man dama leen di yombalal seen liggéey seen téléphone du dem kenn du leen fi fitnaal parce que ñun yéen man ak presse benn lañu te jotewuma see kenn dafa am benn vidéo rek bu ñu yore si presse la bokk dégg nga dégg nga si presse la bokk yaa ngi may dégg gis ka kooku xëy na moom mun na bañ a ñëw fii tey te loolu ñun rafetlu wuñ ko non yàlla tere tur kon ma def déformation xaw ma waaw miin mi loolu sur mooy sama kër <laughs> waaw mooy sama kër moo tax man wax naa ko de si bu bu nit waxul ci Pape Sarr nga jël miniature am photom taf ko ci billaay wallaay duma la bàyyi su nit waxee ci Pape Sarr nag am nga droit jël photom taf ko sa écran yoon dafa am ci dëkk bi te man damaa am njaboot képp ko xamante ne tey waxoon naa la ci ci làmb rek laa doon wax mais tamit képp ku ma waxoon dara lu ñaaw man mu dëkk parcelle man jéggal naa la jéggal naa la de parce que ñun tey ay jullit maa ngi wax tamit kilifa diine yëpp waa Touba waa Tiwaawoon di wax waa Pikine yëpp nañu génn tey dañoo soxla lii maa ngi gërëm waa Texaco maa ngi gërëm waa cité Pépinière maa ngi gërëm waa Texaco waa cité Pépinière waa tali bu bees tali bu mag Icotaf Rue 10 waa Curuba bàyyiwuma kenn maa ngi woo waa ginnaaw raay na ci àdduna ñëw jàppale Ama Baldé yàlla may ko ndam. mais mais billet yi fi mu toll ak ni mu seeree nii booy yi jënd nañ. waaw billet yi jeex. la wax ni la wax ni yow. dafa yomb si ñun 10 000 dafa yomb. mais mais nan koy teeru ndax arène nationale bi si yéen la gën a nekk maanaam seen kër la. dama ne la maa ngi invité tey président supporteru Modou Lo tey ci open press di wan ne tey maa leen gën a bëgg jàmm fuuf tey jàmm laa ciy woote na waa parcelle ñëw ci jàmm waaw man woowuma la ci dara képp ku jege Ama Baldé bu ko sànni ndox bul waaw bu ko sànni ndox bu ko sànni xeer bu ko sànni dara loolu laay lancé supporteru Ama yi waa Modou tamit fu ñu leen yem loo nañ fa yem waa Pikine maa ngi leen di ñaan bu kenn ñëw ci tribune waa parcelle pour jàmm am waaw di ñaanal ñëpp jàmm. Euh, grand ñu léegi yàlla suñu borom même mu defal waaw loolu dax mu neex a bëreel loolu tax Modou Lo neex a bëreel. mu ñëw fekk solo nga am bees bu fi waaw parce que ñëpp dañoo judduwaat nag dañoo judduwaat. waaw yëpp ay liir ngeen. ay liir lañ fi ne ay liir dañoo. <laughs> <laughs> di ñaan yàlla xama Pikine yëpp génn jàpp ci làmb ji Pikine yëpp génn ñu jàppale seen doom incha allah le cinq parce que c'est le Sénégal qui gagne bu weesoo lépp ambiance am na coono am na lépp dina am mais benn taaku tàkkusaan la lam moo ñu boole ñu ñëpp comprendre nga di ñaan yàlla yàlla suñu borom mi am ndam mu defal Ama Baldé ndam lu sedd buy incha allah loolu rek lu bees tàq mooy génn ay pël firndo dañuy ñëw ay ay baa ay bi lampan fatal dam dal bi dal dal dal dal bi dal bi bili bi bind bind bind bind bind ama yooyu ama yooyu bees yooyu faa am waaw ñu ngi sant yàlla di woo tamit suñu mbokk géwél nekk fii ku ci mel ni Pekaay Mbay ak Xaali Mbay Dogo Samba Diarra et si Jibi Gueye defee Peka Pekaay ca ca cool mi. Mhm. ah nag moom waaw loolu mooy am parce que Ama Pekaay ñoom ñaar mosuñu jëflante man El Hadj Mbaye maay wax ak yow. démb nee na wu leen. démb nee na ma wax la Ama Pekaay ñoom ñaar mosuñu jëflante man maa doon jëflante Pekaay. jëflante ak Pekaay. waaw man maa doon 2009 2008 2007 maa doon defar samay soutien dem jox ko ay bonne volonté ñu jàppale ñu dara boobu gisuñu kenn di doog a débuté ci làmb maa wut sama soixante quinze mille wala mu sama cent mille jox Becaye cinquante mille mu dem foor jox Ama cinquante mille mu dem voyage yi. kon yaa Amadou dafa judd ma gis ma judd ko gis. parce que xawoon na jaaxal nit déggoo man la Ama bu bëree làmb ji ba pare ba jël roi des arènes may décorer man ma bàyyi làmb man di gërëm ñëpp képp koo xam na nga koy jàppale. di jiital si nuyoo bi sama nijaay Alioune Diaw ñaaw ba États-Unis di gërëm Mouha Sy kenn du moom Mouha Sy c'est mon ami. gauche droit l'international. waaw mais xam nga xam nga àdduna teraanga rek la te euh, waa Fulaadu yëpp dañuy ñëw ci làmb ji. làmb ji nee naa la doo gis Ama Falaay ba léegi gis. kon mën na doon li ci jot mën naa dox def arène nationale. non incha allah lépp mën a am surprise bu ne mën naa am. daw bay saat mën naa am dox bay saat mën naa am dugg saret mën naa am dugg wotir mën naa am lépp mën a am lu am bu mu leen bett parce que làmb la aar lañ wax làmb xeex bi ak bëre bi imite la ci. aar bi moo ci nekk ay 6 heures de temps 7 heures de temps kon garaawul quoi.